قد سرى في nekk ca nekk wu rafet te duñ ñu xam ñun ñooy ñan ñun xam ñun ñooy ñan nit day xam boppam nit day xam bopam ni nga xewé sa bop rek moy sa pas-pas ah, sa ngëm-ngëm sa pass pass ak sa ngëm-ngëm ko kentini rawati rawatina pass pass bi nga xamné moy pass pass bi nga xamné mo gën ci pass pass yi ngëm gi nga xamné mo gën ci ngëm yi nga am sëriñ masalan ci misaal xalifa alxaaji ibrahima ñas radiallahu anhu ñu ne déetawaay nga ne xalifatul xaaji mouhamad ñas nga ne déetawaay alaaji abdoulaye ñu ne déetawaay ñu ne seydina siya ñu ne déetawaay nga ne yontu yàlla mouhamad sallallahu alayhi nga yox yaxi di tiit di ñàkk sa bopp fayda di nga am bi topp nit ñi doye di yi nga xam ne fa tabarakallaahu yi ah, ah. Ah, ñii ku leen am war ngaa xam ne am nga ñoo nga ñoo xam ne ñu jara am lañ nga téye leen de loolu incha man dey corona bi bi mu amee léegi damay wax sax ne li may wax ne le grand patron la corona la man gërëm naa la lool. Ah, la corona. Ah. oh corona jërëjëf kontaan naa ci ah. parce que am na loo xam ne bu corona ñëwutoon du feeñ. wallaay. waaw alquran loolu la wax أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لكن ngeen toog rek naan gëm naa yàlla nii naa naa te yàlla du leen nattu dama leen di indi ay nattu ba أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وإن فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين force mu andi ay nattu seet ba xam yow ban façon nit nga ban façon pas-pas nga yor waaye tey bi nga xamee ne corona bi ñëw na ñu am luñ ko sedd ne ko bu fekkee ne day am nga danañ doxal am lu dox léegi yow te doo ko doxalee léegi ñun ne mu fekkoon ne am na lakk nañ ko bu yàgg jëri ko dem ndax damay wax ne fii ci senegal li yàlla def defu ko fenn. fii ngay gisee alaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhu ak ak njabotam fii ngay gisee mam Cheikh Ahmad Bamba ak ak njabootam ridwanullahi taala alayhim way fi ngay gisee mam alaaji malik si ak ak njabootam ridwanullahi alayhim ak mam Cheikh Omar Foutiyou ak ñeneen ñep fata fii ngay di gisee do ko gis fenen te ñooñu dañu doon baxel yalla yalla doon len baxel itam kon amna lo xamne xaju fi kon nag bu fekkee ne fatabaar ñu ngi taataan ci ñooñu am lu ñëw ba nga yàq yàq taataan moomu nañ dégager loolu ziyaara baa ngi nii leçon la ci ñun ñëpp ba ñuy ziyaar dañ du ngeen fi gis mbooloo kenn du ñëw gars jóge fu ne ba Arabie Saoudite ba Caire ba Espagne ba fu ne كاو لكن خديف ونه نين جوجاني نيونا نيغا مام اموي سيكوريتي ايتا خوت سيتا نيونا ديدت بوليس بوم فا ديم جاندار بوم فا ديم بوم فا دارا ني خول هي تخيال ان ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون لم يتك منو ان جندنا

yàlla ne innahum lawul mansuruuna ñoom lañ dimbale de ñoom lañ joxe affaire yi de léegi ñoom lañ ko jox de joxuñ ko yéen de waaye ba mel ni nit ñi duñ mën lew yàlla nag di leen ko firi rek wa inna jundana lahumul gaalibun yàlla ne sama soldaar yi sama gaay yi ñooy not de loolu nag feeñi ci bi wa inna jundanaa lahumul ghaalibuun kenn déggu fi sàcc kenn déggu fi di nga maam xeex kenn déggu fi leneen yàlla aar ñëpp ñu ne ñun du ñeen aar yàlla nee neen mu soxluma seen kaaraange man maa leen di aar te yéen ku ñëw sama aaraale la ñoom moo tax maa ko nett ci suba koo xam dafa jógee benn dëkk ñëw ne daana fi ñëw ay si gàmmu ak ziyaara lu daan ñëw tafu rek waaye nee na daal bi mu déggee ziyaara bi la dégg nga maam mel ni dañoo summi mbalaan yooyu teg ko nële mu ñëw di jéppalu mu ne day lam daan def ci ziyaara da lay tuub daan di tafu nit ñi ñëw bëgg a bokk nag ci waañ bi ci organisation bi bokk ci kër xalifa ñet di liggéeyal xalifa ñet yëfi caaxaan yi mu ko ñëw na wax ma ko fii c'est la première fois loolu wane na wax ah? kon nañ gëm liñ gëm te jàpp liñ jàpp te téye liñ téye ko defee insha allah yàlla jàppale danañu dimbale danañu taxaw insha allahu taala kon nag mbégte ak kontaante moo tax sax ma yokkaat ci lii waaye li boo suba rek doy na waaye nag dangeen a def lu rëy defaat lu rëy defaat lu rëy defaat lu rëy kon fort leen jox leen lu rëy wax leen lu rëy alquran nee na lilladina ahsanu alxusna gaa yi nga xam ne rafetal nañ jaamu nañ yàlla ba ma gërëm yàlla yàlla ne lu ma leen di fa mu ne alxusna alxusna jëlum fii aljanna moo ko wax de lilladina ahsanu gaa yi nga xam ne jaamu nañ rafetal nañ tëbbu nañ ba gërëm naa seen pay mooy lan li jógee ci man jëm ci mooy lan mu ne alxusna mooy aljanna xusna jooju aljanna lay firi xam nga loolu doy na di yàlla ne nag wa ziyaada dama leen di dolli kontaan nag ci lillazina ahsanu te yal nañ bokk ci lillazina ahsanu moo tax yàlla nee na wa dama leen di dolli ñu ne waaw yàlla ku dugg aljana loo koy dolli xam nañ ba dugg aljana lan la lu aljana ñoo ñaan yàlla bu ngeen demee ba dugg aljana nag damay daal di ñëw nag agsi nag am place boo xam ne nag dama fay toog ne leen kaay leen nag seen borom mi ngeen daan dégg mu daan wax te am kum ko jaarale won ci waxam jojje mu yent yalla muhammad sallallahu Alaihi wasallam ngeen ko dal ngeen daan jefe wax ja nama ko waxee won ak nama ko bëggee won tey ci la contane ba dëkk leen fi ñew na ngeen gis ma nak ma ngi ni ya nañ bokk ëlëk ci ñu koy gis lool moy dolli gi kon nak gërëm nañ sant nañ ngir maane go xamne am na fu commencé waaye amul fu mu yem bu fekkoon ne amoon nañ baat bu gën a foor mbégte ak kontaante nañ ko wax waaye dañoo fekk comme ni ko sama baay rek boo kontaanee danaan kontaan naa boo bëggee danaan bëgg naa waaye bëgg nañ rawatina ci weer wii nga xam ne ñi ci fukk yi nga xam ne moo nekk ci digg bi moom lay tëjee wéru koor bi ñetti fukk la fukk yu njëkk yi rahma la yu ci digg bi di maxfira ndéggal yi nga xam ne moo mujj muy iq mi ne naar mooy goleel ci safara loolu yëpp yàlla ñu ko yàlla defal awaluhu rahma fukk yu njëkk yi yërmaan rahma la yoon bi moo ko wax rahma jooju nag borom xam-xam yu bëri dañ koy dañ ko dañ koy firee du noonu raxma jooju du firi yërmaane yawmal qiyaam déedéet xëy nga da ngay dégg nit génn na àdduna ñu ne yal na yàlla yërëm yal ko yàlla yërëm wala déet waaye yërma raxma jooju yërmaane googu du firi yërmaane yawmal qiyaam yërmaane googu xéewal lay firi ak naataange liñ bëgg muy xaalis milliard yal ko yàlla def mu raxma jooju fukki yu njëkk yooyu ci la yàlla séddalee milliards yi xeewal yi naataange yi yàlla bu ñu ci kenn ëppale fukki yi nga xam ne moo ne ci digg bi di ndéggal fukki yi nga xam ne moo nekk nag ci fin bi fukki yi mujj di ëpp mi na naar xam nga yàlla dafa maandu xam nga bu fekkee ne yor na mbindeefam mi ci àdduna indi weeru koor mu màgg lool muy ñetti fukk ñetti fukk yëpp mu jox ko àllaaxira te àdduna gi ñu nekk nekk àdduna te dem guñu àllaaxira adduna dafa yàlla dafay bañ àddina attaqué ko te yàlla moo bind àdduna bind àllaaxira mu ne nag am na lu ma leen jox te man fee moo ma intéressé mooy mooy mooy mooy mooy kër ga du jeex waaye nag dama leen di jox ñaar yii gardeel ko foofa muy ndéggal ak équl mi na naar waaye nag adduna bi ngeen nekk nag damaa bañ mu attaqué ma man yàlla te bu mu attaqué du baax kon nag fukk yu njëkk yi dama koy def di nga maam xéewal ak naataange ngeen nekk àdduna nekk ay milliardaire nekk ay millionnaire fa tabaarakalaaw nekk am di am di am di man di def di tal mooy tax raxma jooju mi ngi jóge ci raxmaan yàlla nag di bañ ndax bëggut ko yedd bëggut ko dal ci kawam ndax nu mu def noonu la waaye séddale bukki balay bañ bukki bukki dañ koo ñëw jox ko li nga ñetti xeetu lekk ne ko yow lañ fal rab yi ci àll bi yépp yaay seen président gaynde till xar bëy nag ñu euh, ko wax di giléem cokeer akalaw rab yi ci àll golo tout jox ko nag ñetti ñetti xeetu lekk ne ko nag séddale joxeel golo na am lii na na na na na am lii na muus am lii na lii aw lii ñett yi ñu ko jox ba nag ban la dañ koo jox dañ ko jox suukar jox ko jox ko jox ko jox ko jox ko cere jox ko gerte ne ko joxal cere yi giléem yi joxal di nga maam gerte gi muus yi masalan noonu nag li ñu wax nga séddale ko séddale boobu nag la yàlla lay bay biñ ko joxee bukki nag ne ko séddaleel moom mu def fi baadolo ne man de bala maa sédd kenn man muraake laay jël jël na lépp moo tax nag yàlla it bañ dégg nga maam fa tabaarakallaahu eh, àdduna attaqué ko ne ko yow nag ah yow déggal nga nit ñi yow mal xiyaam déggal nga leen ah yërëm nga leen yow mal xiyaam garanti nga dootuñ dugg safara aljanna man nag lu ma am moo tax yi ne ko nag mu ne ko gannaaw yow laa njëkk bind nag yow àdduna yow laay njëkk jox كونك فكي نكي يوحنا لك يو أدنا موي رحمة رحمة جوج موي خيول أك ناتانج وير أك وير لي أم مونا غاني يو سوتي كو كوم تاو تاو تاو كوم تاو كوكو موي كيري ميغا خاني مو وير موتاخ سانغ بي سالاجنا اول رحمه واوسطه مغفره واخره عفق من النار دا بو بيسي يالا دوخالي نونو تا دا فا بëgg دا ñu بëgg دا فا بëgg جامي ndax dafa am ci nit ñoo xam ne ñu amee dañuy beew yàlla buñ bokk ca ñooña fukk yu njëkk yi yàlla boole ci milliardaires yi millionnaires yi nga bëgg a beew yàlla ne déedéet dafa am fu ma la teg bëggum nga tarxiis bëggum nga daanu daal di indi freinage muy maxfira ndéggal boo demee ba bëgg a tarxiis rek yàlla ne déggal naa la yàlla nañ bokk ci ñi muy déggal te ndéggal dafa am solo ndax dafa am benn waay boo xam ne setan da ko xiiroon muy muy tagg sàngara rek di tagg sàngara rek di wax sàngara lu ne ba ku bëggu nan naan sàngara sax xelam ne ci sàngara ba benn bés doomi bàjjenam ne ko diw tuubal jëm ci yàlla lii ngay wax ci sàngara boo dee dem safara mu man fa ngeen fa ngeen foog jëm yéen ëllëg maa leen fay jiitu muy aljanna fa ma fàkkat du fa daanu ñu ko ah, baax ñu ne ko baaxal li ngay wax ci sàngara mu ne duma ko baax xam naa ne baaxut waaye sama guula waaye am naa lu ma yaakaar loo xam ne moo ëpp doole loolu ah nit mooy li ma wax nit ngëm-ngëmam dafa am solo pas-pasam dafa am solo moom lam ngëm lam jàpp lam téye mi ngi ci xol bi yaa def mu génn àdduna ba mu génnee àdduna rek ba ñu rob ko benn wàllu yàlla daal di génn gis ko ci jannatu naim mun dugg aljanna mu ne xanaa kii du diw mu ne ah kay yow li naan wax sàngara daan ko tagg di ko way tey nga yàlla yóbbu la aljanna mu ne dafay am fu ngeen ma fàkkaloon am fu ma fàkkaloon sama bopp fa ma fàkkaloon sama bopp nag yàlla fekk si ma yow ñu ne ko lan la mu ne daanaa wax sàngara lu ne nag waaye duutoon rek sama coobare seytaane ma ci xiiroo rek waaye gëwuma ko woon nag bi mu génnee àdduna nag ñu indi nag lam daan wax ca sàngara taaj indi magfiratu rabbina ndéggal su boroom taaj indi balance danañ ko peese bu fekkee ne lam daan wax ci sàngara moo gën a diis ñu yéegal ko ci ñooñ sàngara bu fekkee ne danga maam magfiratu rabbina ndéggal suñu borom moo gën a diis ñu yéegal ko ci maqaama magfiratu rabbina ñu indi jëf ja teg indi magfiratu rabbina teg magfiratu rabbina di nga am daane kon yal na yàlla déggal yii ñi nga xam ne moo ne ci digg bi waaye yàlla dafa bëgg nag doomu aadama yi ba tey bëggul ñu rëcc mu ne fukk yi nga xam ne nag mu mooy fukk yi nga xam ne moo mujj kooku dama leen di def nag gore nit ci safara gore gore ci safara mooy lan mooy gannaaw di fekk sotti na ay xéewal ci fukki njëkk yi déggal na la ci fukk yi nga xam ne moo ne ci digg bi léegi nag bëggul nag dossier bi amaa tâche xam nga léeg leen ñu tëj nit ci kaso bu ñu yàgg mu ñu tëjaat ko wala am wala déet day bëri ñu yóbbu nit police ci yàgg yóbbuwaat ko day am yàlla na nag jibril mu ne am mu ne ko demal jël benn tampon ca tampon aljanna yi bu koor gi jeexee ñi doon woor nga jël tampon na leen mm-hmm. ne leen dangaan garantil naa leen mm-hmm. assurance plein ñoo dootuñu dugg safara ak jànna direct yàlla nañ bokk ci ñoom kon nag weer wi mi ngi nii dañ ne nag ki dund ci weer yi fukk yu njëkk yi ci digg bi ak yu ci fin bi te yàlla déggalu la kenn dunu la sàggat kon nag nañ ci gën a góorgóorlu bu baax gën ko jàpp bu baax gën ko téye te xam ne gan la goo xam ne at mu ni mu gane si ñun ñuy ñaan gan gi bu ñëwee nañ ko teral te jàpp ko te téye ko waaye bu fekkee ne gan gi ni muy ñëw ñaan xee gan gi di ca wax yeneen gan gi kat day ñaan suñu borom ne ah diw dey moom daa bañ fa ñëwee la waroon ci ñun defu ko weeru koor bu ñaanee suñu borom rek suñu borom nangu ko kon nañ fexe naan weer wi bu mu jeex weeru xéewal weeru naataange weeru jàmm ndax weer woo xam ne keroog bi ne weer wi feeñ na dugaguñ ci ponk bi dugg dugguñ ci farata yi ñu koy ji ñu ñu koy gàttandoo naafila ak i ak i sarax ak i jokk ak bokk yàlla kontaan ci bég ci ba ne Jibril ah, ñii ñi nga war a xiif war a mar suba di ko gasandoo nag ay naafila ki sarax kontaan naa ci ñoom te sa duggagu ci mi bi déggal naa ci ñoom juróom-ñaar fukki junne yi nit yàlla nañ bokk ca te booba de dañoo dugg ci naafila yi rek te naafila sax bokku ci koor waaye nañ koy gasandooyee gatandoo googu moom la yàlla bég ba ne jibril déggal naa ci ñoom juróom-ñaar fukki junni bët set ñu or bis bu njëkk bi yàlla na jibril lu ma déggal mu ne ko juróom-ñaar fukki junni teg ci juróom-ñaar fukki junni yi tey muy ak ñeen fukk mu ah, mu ne ko tegaat ci yeneen téeméer junni ak ñeen fukk ndax sa gars yi ca bokk bés ñu waree fa tabaarakallaahu yàlla laaj jibril ne ko ñaata mu ne ko dégg nga dégg nga ma am téeméeri junne de mu ne tegaat naa ci dégg nga am téeméeri junne ñu di ko def di ko def ba korité mu ne ñaata ñaata laa déggal ñu ne ah nga juróomi milliard de mu ne teg naa ci dégg nga am juróom fukki junne milliard comme weer wi ku ci yàlla déggalul war ngaa xool sa bopp kon nag ñun nag ñu ngi ci yoon wi mooy yoon wi mooy lii ngeen def tey ji mënoon ngeen ah kenn ku ñu tëdd sa néeg sa ventilateur di la të di la ut wala sa climatiseur waaye ngeen ba yëpp ñëw ni ñun diine moo ñu ñor l'islam moo ñu ñor kër xalifatu xaaji Muhammad moo ñu ñor kon nag yàlla yi dana togg lu ñor tegal ñu ñu lekk ba suur jox ñeneen ñu lekk ñooñu jox ñeneen ñu lekk ba péej yàlla loolu du jeex kon nag gërëm nañ sant nañ sant goo xam ne nañ ko waxoon am na fu mu commencé waaye am fu mu yem ñu ngi ñaan yàlla ziyaara bii yàlla bu mu nekk suñu mujj ziyaara koor gii yàlla bu mu nekk suñu mujj ak koor yow yàlla yow mi ñu baaxee bañ fekki ko ren baaxe waañu bañ fekki ko déwén ak déwén yu ñëwagul yàlla nañu or téeméeri weeru koor bi ne ca kanam téeméeri weer ko yoo xam ne ren lay commencé mu ànd ak jàmm ànd ak wér ak mbooloo maa ngi bëgguñ kenn ku dul yow yow yàlla xooluñ kenn ku dul yow say ñooñu rek lañ xool kon defar leen defar ñu defar gi nag li ci njëkk nañ am sant nañ wér nañ wér nga xiir ñu sa bopp ñu lay jaamu mu néew nag bu bëri yëpp nangu ko waaye nag jaamu googa nag jiital ji nag na alal ji ñëw ne milliards ñëw man garanti naa ko duñ beew ñu waa kër xalifa ñu taalibe xalifa ñal de taalibe xalifa ñet lañ taalibe ibrahima ñet lañ kii ñooñ Muhammad lañ garanti nañ ko ni ñëw rek garanti nañ ko duñ beew ñi teew ak ñi teewul yëpp joxal ñëpp lu ñëpp am lu ñëpp am lu ñëpp am lu ñëpp yàlla yaa def loolu ñu ngi lay ñaan di la dellu ñaan nga defal ñu jàmm joo xam ne xam ne jàmm la jàmm zahir jàmmi baat yow yàlla ñu la koy ñaan nga toroxal suñuy noonu nag nga ay gàllankoor teg leen ay galaga ba dóor ju tal diine lislaam dóor ju tal yal na yàlla def loolu yal dooleel diine lislaam kàttanal diine lislaam ak ñooñ diine lislaam képp ku xam ne mi ngi bëgg a nërmeel diine lislaam yow yàlla nërmeel ko nërmeel ko nërmeel ko nërmeel ko sirru sirru sirru inna rabbaka la bir mirsad képp koo xam ne nag ngir dooleel lislaam nag di ko jàppale ak ñun lislaam dooleel ko jàppale ko taxawu ko yàlla yaa def loolu yàlla ñu ngi la koy ñaan yàlla yaa def loolu nga fekk suñu fan fekk suñu fan may ñu prolongation bu ci waroon dem ren wala déwén wala déwén jéeg effacé ko na dundaat téeméeri at ci kanam yaa ko wax yaa ne yem xulaaw maa yee saa wis kenn ñi ma wax kenn amul sañ sañ wax yaa ko yaa ko ñemee wax yaa ko sañ a wax te gëm nañ li nga wax kon nag yaa ne yam xuu yaay effacé lu ko neex kon nag yaa ne woo yusbit kon nag saxala ñu fan wu gudd wér ak yaram wërsëg wu ànd ak jàmm xéewal ko ànd ak sutura wërsëg wu ànd ak jàmm xel ko ànd ak sutura buñ dégg ndeysaan buñ dégg ay gore yal na yàlla def loolu tawal ci na ñëw nag wërsëg wërsëg woo xam ne dañ xam ne lii wërsëg la def ko nag ci ñun def ko ci njaboot bi ci taalibe yi ci xarit yi ci wëllëre yi ci soppe yi penc mii yow yàlla yàlla nga gën a sagal yàlla nga gën a sagal penc bi ak ñooñ penc bi yow yàlla ñaan nañ la ko di la ñaan nag penc mii pencam Khalifa ñes mi defar ko yow yalla duñ ko sante kenn yow defaral nañ ko sa bop defaral nañ ko sun bop sa bop penc mi taxawu ko ya ya ya na nga taxawoon maam alaaji abdoulaye ñes ak ak njabootam ak khalifatu haji muhammad ak ak njabootam penc maangi ngi ci kenn ku dul yow yaakaaruñ kenn ku dul yow xooluñ kenn ku dul yow bu ñu kenn dimbalé ñu nag ñuy dimbalee nag sotti milliards yi waxuma sax dégg nga maam ñi sant ñes waaye dégg nga maam taalibe yi taalibe taalibe yi di xëccoo pour defar pénc mi aaje xëy na aaj nu mu gën a gaawee nu mu gën a gaawee yow yàlla def ko ne milliards yi sotteeku waaw sotteeku ci ñi sant ñes ak ñi santu ñes ak ñi leen bëgg ak ñi leen sopp ak ñëpp am nga xam ne fa tabaarakallaahu penc mu nekk penc yi nga xam ne fa tabaarakallaahu dañ fay sagal diine penc mooma nga def ña nga xam ne ñooy dundal foofa def leen ay milliardaire bañ dundal foofa ci ñeseen ak lu ñeseen ñaan nañ la ko yaa allah ñaan nañ la ko yaa allah ñaan nañ la ci barke bés bi ci barke waxtu wi ci barke weer wi ci barke fukk yii nga xam ne ci lañ nekk ci barke fukk yi ñu génne ak fukk yi nga xam ne moom lañ dem ma yal na yaa def loolu bépp jàngoro nag bu ne ci ñun buñ xam buñ xamul bu nëbbu bu feeñ sifaa u laa yusu ci saafara ko de saafaraal yaram yëpp saafaraal yaram yëpp saafaraal yaram yëpp cancer yeeg ulcère yi diabète hémorroïde AVC tànk yu métti yu ruux los yu métti wanaasu biir buy métti lépp ay jàngoro la ku ko saafara ko dara ci yow shifaan aajilan shifaan laa yugaadiru saqiman ku fi ñëw wala nga bëgg fee rek na wér waaye yow yàlla wéral na nit ñi wér na nit ñi wér ndax ñu mën laa jaamu na nit ñi wér ñu mën a woor na nit ñu mën a dem na nit ñi wér fa tabaarakallaahu na nit ñi wér waaye gannaaw wér googu nag ñu dund xayaatan tayiba xayaatan tayiba dund gu neex dund googu nag lañ ca ñun mooy nag na na yi ñëw rek. na milliards yi ñëw rek. ànd ak kàttan ak wér nag. kàttan ak wér. kàttan ak wér kàttan ak wér defal ñu ko. taalibey xalifa ñes. taalibey xalifa ñes. soppey xalifa ñes. taalibey alaaji ibrahima ñes. soppey Mouhamed ñes. soppee Mouhamed Niass yow lañ sopp de yow lañ bëgg de yow lañ sopp yow lañ bëgg yow lañ sopp lañ bëgg bu waxee yow a bu ñu yuuxoo yow a bu ñu meree yow a xeexee yow a man de sama kurus gii du ci fettil kenn xanaa ku lay fetti ku lay fetti ma fi wax ah, fetti dara ma fetti ko ko kon nag fettil na milliards yi sottee ko rek na sotteeku rek te ànd ak jàmm ñi teew ak ñi teewul yëpp na ñëw te ànd ak jàmm na ñëw te ànd ak jàmm balaa balaa weeru kooru déwén weeru kooru déwén ñi teew fii ak ñi bëggoon a teew ak ñi war a teew yëpp kenn ku ne soppi ay mbiram ci anam ku gën a rafet ci wér ci wér la ci am ci man ci tal ne millions yi sotteeku ne milliards yi sotteeku te ànd ak jàmm ànd ak dëgg yal na yàlla yàlla def loolu yàlla yàlla def loolu yal na way jiituñu yàlla déggal leen leen dëkk leen jannatul firdaws bila xisaabin wala iqaab عابد كان يا ديف نون سون ماغي يالا فايل نيو ماما لاج عبد الله نيس اك جبوتم سينا باي يالا نيك الجنه جير فيروس واي سو مام خليفه حاج محمد نيس اك جبوتم اك تالي اي طالب اي خريتم اي مول اي سوبيم يالا يالا فاي نيو لين سينا باي سي نيوم يالا ديك يالا نيك الجنه ني جيت نان ديك الجنه ني ناك ني askan wi liggéey ci mbokk gi liggéey ci société bi yaa ngi ci mën a dimbale nag dimbale ñu ci nag nañu ci dimbale nag awal nañ am wér nañ am wér nañ am wér nañ am wér nañ am wér gannaaw wér googu milliards yi na sotteeku milliards yi na sotteeku milliards yi na sotteeku na sotteeku alali xaaru na jooje di dem dëpp ko tibb ja soppi ko andi ko bu dara ci yow innaka ala kulli shay'in qadir innaka ala kulli shay'in qadir duñ ko wax kenn ku dul yow innaka ala kulli shay'in qadir kuñ ko ñeme duñ ko takkal kenn tappaluñ ko kenn waxuñ ko kenn defaluñ ko kenn yaa ko wax sa bopp ñu waxal la ko di ko wax tur leen kon nag soppi loola soppi ko soppi ko te andil ñu ko ñu ko kenn ëppale ñaan nañ la ko def ko def ko def ko def ko ci ah, nañ ko na alal ji sotteeku tey ci taalibe yi ci xarit yi ci wëlëre ci soppe ci njaboot gi waaw lu waay bëgg a def def ko te liñ bëgg a def yépp jàmm rek lay doon parce que tàggatal nga ñuy jàmm ak diine ak lislaam ba xam nañ ko duñ tartis duñ def faux pas kon dimbali ñu ci loola balaa weeru koor weer del si déwén yow yàlla mbooloo mi nañ leen ràññee ci am-am ya? ci alal ci lu mu gën a gaawee aaji leen xayri aaji ñaan nañ la ñaan nañ la ko ci barke allahuma ya malik samawati wal ard wa ya mumsik samawati wal ard wa ya alima sirri sirri fi samawati wal ard baritul alamin ya mujibu da'atul muttalin wa ya nur samawati wal ard ya dal jalal ikram ay yow yàlla ñaan nañ la ko ñaan nañ la ko ñaan nañ la ko ñaan nañ la ko ci ismullahi alazam ci sirru sirri la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñaan nañ la ko yow yàlla may ñu fan mu gudd wér ak yaram wërta wu ànd ak jàmm yor ko ànd yàlla sutural doolu ñu sàmm sàmmal ñu doolu ñoo xaar te xaaral ñu musal ñu ci gémmiñ ak cet ak bët ak lépp lu la xaar ñu ci zaahir xaar ñu ci baatin waaye yow yàlla dimbaleel jaam yi dimbaleel jaam yi waaye dimbaleel taalibe yi taalibe yaa ngi xarit yaa ngi wóllare yaa ngi soppe yaa ngi bëgguñ kurul yow liñ bëgg defal leen ko xam-xam buñ taxawu kenn buñ saraxu kenn buñ sibooru kenn buñ yalwaan kenn yow la ñu sibooru yow la ñuy yalwaan jox ñu jox ñu na yëf yi wàcc na yëf yi wàcc na yëf yi wàcc na yëf yi wàcc na yëf yi wàcc ci barkeeb ñu ñëw ne wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih